Modou loo Balla Gaye loo Lo Balla ah, combat de taille la parce que boo xoolee ñaari champion la ñoo xam ne ni ñoo war a daje le treize donc xam naa ne sénégalais yi namoon nañ ko donc def nañ ne affiche bi am na. boo xam ne combat bu mag lay doon. combat bi diiree te bëri bañ a am avantage Modou Lo la mais bu combat bi diiree bëri di am toujours avantage Balla Gaye la parce que Balla am na kale yoo xamante ne kale ci kaw kale lay bëree. dëgg yàlla ndax ku nekk xam ne Balla Gaye ci bis ndax parce que mosut a bëree combat bu ndaw Modou Lo tamit champion. làmb ji ni ma ko gisee mooy du yombu te combat bi tamit. Euh, ni yaakaar ne noonu lay gaawee tamit man gëmm ni dina gaawee noonu ndax Modou ni ma ko gisee ci làmb ak li mu entraîné ak ni ma dégg muy waxee ci signature am mooy combat bi da ko bëgg a diireel te Balla Gaye tamit bëgg na ko wan ne ko combat bi ni nga koy diirelee tamit naa la wan la naa la fekk si ndax ñu bari leen ni Balla Gaye mënut a diirelee combat man yaakaar naa combat boobu. du combat buy yomb te nekkul combat buy gaaw quoi. ñoom ñaari mbër yëpp pare nañ quoi instant bi ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu ku leen gis xam ne liggéey nañ bu baax. ñun moom ñu ngi ànd ak Balla Gaye 2 waaw. 100 pour cent Modou Lo gaa yëpp ay ay xarañ lañ bàyyi. Euh, combat Balla Gaye Modou Lo ni ma koy gisee mooy làmb la làmb la boo xam ne saa yu ñu ko tëggee àdduna day yëngu Sénégal yëngu. waaw ah, c'est-à-dire que ndax Modou Lo moom boo ko xoolee xam na ne pour l'instant moom liggéey na liggéey na war na ko mën a may ndam pare pour Balla Gaye Balla Gaye tamit préparé na pour mën a am ndam ci kaw Modou Lo Balla Gaye koo xam ne Balla Gaye bu démb ak Balla Gaye bu tey bokkul dafa liggéey xam nga Balla mooy sama mbër te woolu naa gëm naa ne moom boo ko jàppee lamb ji jeex 2-0 non 2-0 moom mënu ko nekk moom daan moo gën a yomb loolu moo gën a yomb parce que ki la daan ci vingt 24 secondes jàpp naa ni euh, bokkut ak yaakaar naa ne bu dee boo jàppee ni mun laa daan yaa ngi nax si bopp xam na ni mbër la carrément xam nañ ko bu baax waaye yàlla xam ne bu dëggalee boppam bu dëggalee boppam taxaw ah Balla Gaye dina dox ci kawam te bu reculer dina ko fekk si te dina ko jàpp dina ko daan non loolu moom c'est impossible mënut a nekk ndax 2010 ak 2019 dafa sore plus de 9 ans quoi non doon 1 1 lay doon sa xoolal jëli bi mooy gën a ñaaw ka jëli bañ ñu bam ñu daanoon bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko 2 0 bu mujjul metti ci moom bu ko deful 2-0 ba pare mu méttiwaat encore ci moom ndax xam naa ne mi ngi naan xam nga buñ gàddaayee dutuñ delsi mais moom damay ragal moom mu gàddaay sarale de. <laughs> si sama gis-gis moom mu loolu laa yaakaar moo gën a pare moo gën a pare si lépp moo gën a pare si lépp si wàllu gàllaaj si wàllu physique si wàllu lépp daal sama mbër moom. daal ñun daal li ñuy ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu si la tërees rek incha allah ñu am dem ñu bis. non tolof tolof moom xam nga mënut a ñàkk si mbër ñun ñëpp a yem xam nga mbër yëpp a yem muy man muy sama morom. tolof tolof ta ñàkk bis day ñëw instant boo xamante ni yow doo ko moom xam nga mais nag làmb dafa yéeme xam nga te Balla dafa dikkaat nit ñi xamuñu ko boo xoolee Balla nga xam ne dikkaat na keroog Balla dem na ba signature bi nii dem na ba àllu si biir signature bi ba naan ko sumeekul ñu xool bu ñuy xool yow yaa am biir te pourtant moom lañ daan wax naan day takk genn parce que instant bi dafa am biir mais jamono ji biiru Balla na mu doole lañ fa gis bu baax xam nga dagg bu naaj. xanaa kay ñaanal sama mbër mi suñ borom may kon ndam incha allah si kàttan yàlla le treize janvier koy ñu dem si jàmm am ndam ñu bisiwaat. ah mais waaw bien sûr que am na ñu mu ko jaral nag waaye am na ñoo xam ne jaruñu ko ki moom lu ko jaral rek moo ko jaral waaye man mii moom jaral na ma. waaw làmbam mën naa ko dem seetaane ko Dakar maa ngi pare man ak samay gars ñoom def xam nga waa écrit bi yëpp ñu ngi pare pour dem këram. ah xanaa kay ñun ñëpp rek fan si Modou Lo ak waaye ñu def ndànk rek kenn ku ne supporté sa mbër suñu borom may ko ndam mu bañ a am benn violence quoi. di ko rafetlu rek ndax euh, victoire moom génnul Sénégal. moom soo ko bëggee lu leen la lay jaral. man dama jàpp ne euh, fan su Modou fan su Balla Gaye waruñoo nekk ay ngaaga xam nga dañoo war a xool ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy supporter. nekkuñ ay ngaaga fi mu ne nii wax ji wax ji wax ji xoolal mën nañoo nekk ni di yëngal parce que dañuy jaay seen combat mais ñoom ñëpp ay doomu ndey lañ xam nga am na benn match boo xamante ni xoola bu ñu ko seetaanee tey ji da ngay gis Modou loo di defal Balla Gaye muy raxasu ñuy dàqante ci terrain mel na ñoo bokk ndey mel na ñoo bokk baay mais xam nga ñu ni tamit dañu war mos tuuti jërut làmb jërut ay xeex jërut xuloo xam nga làmb sport la boo xamante ni bu boolewul wul tàqale te tey jii nii xoolal dañuy job travail comme nga xëy sa place bee di ñafe xam nga comme lii ngay def la rek liggéey la jërut ay kii quoi ay xuloo xeex